dana am ñu ñëw fii ci ñun rocc ko yóbbu ko ñu soxla wàkk duñ ci mën a jot kon ku jamono néewle la woon ci ay jamonoom ba léegi si gisatu guñ ko ne mel euh, moo tax benn naarub gànnaar euh, waxoon na ci ay baytam yu doon way Sëriñ Tuubaa naan bay wax naan xadi xadisa zamanu an yajuda mislihi adduna bu waatoon ne dana mën a am ku mel ne Sëriñ Tuubaa gannaaw Sëriñ Tuubaa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 nelaw tuuti doo xaar fenn nelaw waaye su la nelaw songee ndax moo nit la yàlla bindandoo nga nelaw tuuti na war fojjat jóg nekkaat ci lu baax ba nelaw jot nga nga jóg nelaw yi ku teel a mokk alxuraan la loolu mas ne ca toppandoo teel a dugal gone mu mokkal alxuraan lu neex a toppandoo la su na pecc alxuraan mu teg ci yem cay teg ba ba muy àgg fam ca mën a yam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 ba fi Serigne Touba di nekk nag diggante Touba ak Mbàkke dong xabaar daana lëf daana xew fii ba xewi tawa Mbàkke duñ ko yëg walla waa Njaareem waxaale wuñ ko moom moo tax mag ñi nekkoon Touba bu njëkk mas na cee dégg kuy yedd goneem ci tëju guñ tëju woon naa ko diw mi ngay àndal du sa moroom du sa mappandoo ndax dégg naa day dem ba Mbàkke fii mu nekk tey dem ba Mbàkke kon Mbàkke nii mu jegee léegi jege wu koon bu njëkk waxuma laa Jurbel waxuma laa Ndakaar waxuma laa Gabon waaye yàlla la dénkoon bàyyee ko mbiram wéeru ci moom te ku yàgg ku wéeru ci yàlla kum bamax boo daanoo dootoo jóg te kenn mënu ko bamax ba daaneel ko ndax fa mu wéeru dafa dëgër kon Serigne Touba doy na sëkk ñu waxtaane ko ci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 sëriñ Tayba sëñ Mandumbe Marsil radiallahu anhu moo ne ana Ahmadu Bamba noonu la tuddoon booba booba tuddugutoon xadimu rasul xadimu rasul bi tudd xadimu mu ne maa ngi nii mu ne ko jege jegesil mu jege si bokk yi nag nee nañ at taarixu la yarxam at taarixu la du jéggale yàlla nañ yàllay defal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 loolu jeng mënu ko weesu mu ne nangu naa ndax seydina omar ibn xataab radiallahu anhu waxoon na ne yeneen bi moo ne min abarril birri an yasila rajulu ahla waddi abi noonu la si mut lébu jëf da nga bind ci téereem boobu irwaa nadim waaye nag ñu di ma fa teg may ngir leen lenn moom laa laa wa kallaa wa abada xel xalaatu ko ndax rus naa daal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 ñu ne innahu la safi ci la binde woon ti euh, bayit yooyu xasida googu ñuy wax qaalu li yarkan li abwaabi salaatin taxus jawaahisa tuxni kulla ma xiin fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayri alilmi waddiin di wax banaan anna ufawidu axwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajza almasaakini man ma taawile ko ne mooy tey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 ba sëñ Touba ne wërëñ ba borom Touba ne wërëñ dem saa su nekk maa ngi sàmmoonte baatu borom Touba ak sëriñ Touba ba borom Touba ne wërëñ dem ñu tàggoo beneen leetar sëñ Modou Léem Diop dagan nee na ku ñuy wax aadama Sall di ab jolof-jolof indil sëñ bu mag bi borom Touba benn leetar boo xam ne yi Xaadima Jaxate moo ko ko bind loolu mi ngi ci raw na dem